jamono mënu leen a ndokk ndax fu ñu mën ci tollu keroog la leen nit ñi gën a bëgg koo xam ni foo toll nag keroog la leen nit ñi gën a bëgg jamono mënu la ndokk koo xam ni nëbb nga sa soxla ci biir soxla yàlla noon mënatu la ndokk jeex na takk kooku noonu rek la demee ba tax na loolu tabarkalla tabarkalla mooy seen cër yàlla leen ko defal njaboot war ko xàmme ndax xër nekkul ci tës tës xër mi ngi ci xàmme waaw ndax fa inna qalila al xubbi fa inna qalila al xubbi wa inna kathira al xubbi bil jahli faasidu